salaamaaleykum internet du Médina TV ñu ngi leen di nuyu di leen chat di leen wax ne ñu ngi am kontaan di dalal kan benn ndaanaan boo xam te ne kenn dootu ko présenté kenn muy l' international One Lyrical One Lyrical pourquoi featuring bi yow ak El Diaz yeah ma bro naka mu yaa ngi cool maa ngi nuyu gars yi ñuy seetaan bon featuring bi Dia sama mbokk la <laughs> sama cousin la en plus mën na li muy def quoi xam nga fil naa lu muy def e c'est venu naturellement en fait nekkul affaire boo xam ne dañ ko forcer la fil naa lu muy def comme ni ma ko waxee moom fil na lu may def et nañu def nañ benn son boo xam ne nii voilà dina neex gars yi loolu xam naa koy joxewu nañ ci daal à sam pour cent ça fait plaisir de collaborer ak moom bon One Lyrical gis nañu ne sénégalais dañ la bëgg macha allah ngay def liggéey bu nice nekk rappeur boo xam te ne sans façon nan ngay dundee succès boobu macha allah. waaw dañ koy dund rek normalement parce que ñu ñëpp ay nit lañ fi waaye doomu aadama lañ donc amul lenn lu ñu ëppalee nit yi peut-être yàlla dafa def benn affaire mooy que ne nekk nitu coow da nekk nitu mbooloo souvent voilà da ngay recevoir nit yi rek quoi parce que bëgg moom. nit bu la bëgg ba ñëw si yow ne la dama fil li ngay def wala dama bëgg ñu fotowu loolu amoo fayam en fait donc mu koy dund ak les épaules xam ma les la tête sur les épaules. parce que damay gis One Lyrical bi nekk ci game bi day tàng jër ak One Lyrical bi ma gis nii c'est diamétralement opposé ñun nag dañ fi nekk pour askan wi. bëgg nañ lépp loo xamante ne day dañ ci am xel ñaar rek ñu laaj ki nga xamante ne mooy concerné bi mu leeral ñu ci. pourquoi deux profils différents. deux profils différents <laughs> bon bon c'est pas que dama bëri histoire sax wala comme ni ko nit yi di xalaatee mais je fais musique donc damay damay def lu ma fil en lu ma bëgg a wax laay wax si samay son et voilà comme nit ku nekk si mbedd bi nu muy amee envie wax benn affaire wax ko man noonu laay noonu laay dundee ak samay son tu vois amuma benn limite genre waruma wax lii wala tabu la wala genre affaire yi nu ma ko filee noonu laa koy defee quoi après tamit sama xol lay jóge ma def ko moo tax nit yi ñu koy recevoir quoi. maanaam c' est le yow tu vis tu tu tu parles d' une nga naturel li ngay li ngay dund ci boppam moom ngay exprimer pour mu génn ci yow. xam naa on aura l'occasion de revenir avec toi parce que vraiment bëri na loo xam te ne war nañ ko mën a yaatal ak l'international One Lyrical parce que mu ngi def liggéey boo xam te ne macha allah kenn mënu ko génnee ci game bi parce que booy lim da nga koy cité allah yal na la yàlla lafal cat yàlla doole la sutura on aura ci yeneen affaire ak kan l'international one lyrical. incha allah jaajëf maa ngi maa ngi leen di bëggee Peace Medina TV la yow. leer na nañ.